moo tax loolu ñuy ut loolu ñuy ut moo tax il faut ñu am un consensus national fort teewul les idées vont s'exprimer les antagonismes opposition dina am pouvoir dina am syndicat dina am waaye nag may wax syndicat yi nii moo yàgg wax rek il faut ñu dem rebasing social parce que su ñu wax rebasing fii budgétaire et cetera la ñuy yëm foo ñu dem rebasing social bu gouvernement defee effort jàkkaarloog askan ne leen réew mi fii lañ ko fekk syndicaliste bu toog dégg ni 4 pour cent lañ la waxoon annoncé woon déficit yaa ngi 10 pour cent 73 pour cent lañ la waxoon dette yaa ngi 83 pour cent ak yeneen ak yeneen syndicaliste boobu bu jiitalee patriotisme war na xool nu muy modile waatee ses revendications bu jiitee patriotisme war na may gouvernement boobu un peu de temps mu essaye dabu ba noppi parce que ki ngay laaj mënul joxe lu mu yorut mun nga grève mun nga bloquer mais nit sa kër sa doom bu la nee chaque jour su may dem école dama bëgg nga jox ma cent mille francs te yow sa salaire bépp boo ko dajalee cent cinquante mille francs la doo ko jox kon nañu xool lan mooy lu raisonnable mooy état bi dañ ko fekk ci benn niveau niveau boobu ñu fekk ko moo tax ñu njëkk a jiital naka la ñuy def ba premier sacrifice yi état bi ci boppam moom moo koy endossé moo tax ñu njëkk a poser le débat sur la réduction du train de vie de l'État lépp lu doon dépensé cinquante nañu fexe ba wàññi ko mu dem trente loolu sooy woot nit ñi ci baax da nga leen ciy jiitu moo tax ci fan yi président de la République bi conseil des ministres rek ñu jóge dafa joxe ndigal dinañ dajale syndicat yëpp après un travail d'inventaire basé sur la vérité et la transparence Elimane wax na léegi ndax ñaari Elimane la d'ailleurs mooy fu ñu toll rek yéen di ngeen xam fu ñu toll di ngeen mën a nattal seen bopp te ci accord yi bëri na ci loo xam ne jaaduwut taxam ngeen ko ndax gi ñu signé ci dernier temps yépp di parax paraxe pour bàyyil ñi fi nekk fardo noonu lañ ko defee ci recrutement yu jaarul yoon noonu lañ ko defee ci marché public yu jaarul yoon loolu it il faut que Sénégal yëpp d'accord ko ñu ànd xool loolu nuñ koy saafare moo tax ce contrat social dinañ leen ko proposer man d'accord naa suñu nee suñu principal problème Sénégal problème gouvernance la man d'accord naa ci li ñuy jàmbat yépp mi ngi dellu si ci gouvernance moo tax ce sera au cœur c'est déjà ci li ñu jot ñépp gis nañ ni problème gouvernance yi lañu du yem rek ci li fi weesu ndax loolu il faut mënuñu ko passer par perte de profit <coughs> mais ni ko président daal bi waxee keroog day jublu it ci képp koo xam ne yaa ngi ànd ak ñun ci liggéey bi depuis le planton jusqu'au président la république nag ñu xam ni ku ñu confier responsabilité dërëmu askan wi dërëmu askan wi la loolu réew mu la ko gën a réussir mu la gën a développer rawatina nag réew yoo xam ne sa koom sa doole bëriwul kenn ku ne bëgg di damm ci poosam loolu mënul ne et donc loolu aussi on est tout à fait d'accord